maa ngi leen di dollee nuyu di leen di ziar wax ngeen lépp bam jeex ndax man sama jataay fii yéen bu ngeen waxee li ngeen war a wax nii ba mu jeex nii man waxatuma fi dara dollee nuyoo rek di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Kër Massar bi nga xam ni ñoo dalal Pikine département wu Pikine waa département Kër Massar ñoo leen dalal département wu Tëngéej département Kër Massar ñoo leen dalal li waral loolu monsieur le maire mi xam na ko te yaatal mu bëgg nag région de dakaar yépp ñu former leen ay formatrices El Hadj suñu président suñu candidat à la candidature bu 2024 dafa bëgg jigéen ñépp nekk ay entrepreneur ku nekk mën a entreprendre sa kër ma koy nuyu bu baax di ko ziar moo ñu dalal daf ma doon tooñ ma ne ko dalal naa la waaye moom moo ñu dalal moo ñu yaatal lu waaye wax dafa des ndax man xam naa fekkee naa grand parti bi ñu koy sos moom xam na danaan toog xaaju guddi 2 heures du matin président ni ko jëlil kumba fajal mu taxaw sama buntu kër ni ma nañ dem amul naaj bu tàng amul taw amul fajar amul dara kii fu nekk til si na moom ànd ak moom président Malick Gakou mm-hmm. dama ne sa maire bi du chance mérite la yàlla na ci yeneen topp di nuyu madame la maire Marème li nga wax ci man ci yow la nekk keroog bi may ñëw di seet si monsieur le maire yow xam nga ni moo sës naa ci moom rëkk waaye damaa def hiérarchie jaar si yow yaa ma jëlal jour ma ñëw bi ma ñëw mu nga xaalis bari jox ma ni ma jëlal gasoil bu la neexoon nga xatal ma ni du dugg monsieur le maire nee na nangam ñun ay politiciens lañu léegi ñu ngi bëgg a màndi nag ci mm-hmm. politique bi jóge nañ ci sum-sum ñoo ngi ci champagne mm-hmm. xam nañ li xew ci terrain bi mm-hmm. boo defoon noonu nag damay jël ndax dama naan kat moom mooy loxoy maire nga yaatal maire boole maag yow lépp looy def mënu nga ma ko bañ a wax ñaari baat rek nga may wax dag waye du commencement à la fin ba tay ji ni teggi wo sa tank ben yoon ma ngi lay nuyu di nuyu wa département wu ma sar mi dalal Pikine ak Tëngéej ñu yaatu ngeen mënoon nañu ñew ngeen siis leen kon nit dañuy xat te bu leen neexon ngeen def non ay jigen dong ngeen yam leen seen département pour la dañu am ay responsable ñom tam di waaye da ngeen a yaatal ba mu yaatu macha allah mention spéciale département Kër Massar ngir sama càmmiñ ngir yéen ñi recevoir jigéen ñi. may nuyu suñu yaay mi nga xam ne moo ñu tette Adja Aw Fay maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu doy li nga wax wax mënu koo weesu ma waruma woon a waxaat sax tey ndax wax nga lépp ba mu jeex macha allah fay biram pendawaa daan di nuyu ami mi toog nga xam ne moo représenté Tëngéej Pape Sow yónni ko di nuyu Njilaan juuf mii nga xam ni Fat Sall moo ko yónni ma nga ca Italie di daal faatu faatu woo ma lu nekk wax na ko man ko bul xalaat dara boo ñëwee di nga fi fekk ay formatrice yu la mën a formel say commune di nuyu ma comme ni mu ko waxee fii la ëppee ma Fat Ba xam nga grand parti famille la ñun duñu ay amuñu ay noon comme yeneen parti ñun ñëpp ay sœur lañ li ko wane mooy suñu ñaari fan yi mënoon na demee neneen mais macha allah waaye lépp nag bu amee parce que Babacar moo yaatal. monsieur le maire mi moo yaatal. monsieur le maire mi moo wone yoon wi di ko doolee santaat di ko doolee gërëm di jël nuyoo bi nag moom di ko teg ci nga xam ni. mooy président Malick Gakou moom na ma ko joxal journaliste yi xam ngeen lan moo ñu fii di tey tey dañoo ñëw di tëj si formation wu région de dakaar ñoo ngi ko ibbee woon dakaar ba nga xam ne man falaan nekk nekk fa coordinatrice ñu jóge fa dem Géejawaay defal leen seen formation tey ñu ñëw fii ci kër monsieur le maire nekk département wu Kër Massar recevoir yeneen ñaari département Tëngéej ak pikin ñu nekk fii tey mooy clôture bi li waral lii xam ngeen lan laam formation bi nga xam ni président Malick Gakou mooy initiateur bi ak a bëgg jigéen ñi yéen xam ngeen président Malick Gakou waaye tàcc leen ko waay président Malick Gakou mooy ki nga xam ni moom xamul yaayam yéen imagine leen nga uuf sa doom di ko nàmpal bët bi nga koy xool doom bi di la xool ndeysaan président amul loolu macha allah waaye xam nga yàlla nag du la xañ pep xañ la pepet nag moo tax su ma déggee ñu naan président Malick Gakou du dem damay ragal naan ñooñu xanaa xamuñu yàlla yàlla mi nga xamante ni dafa judd yaayam won ko ginnaaw mu di ko teete ba mu dem ba tekki ba bëgg ne ñun ñi ñepp buñ fi toogee mom moo tax kii li may wax xam na ko kooku yor ma sha allah yo nga mëna taxaw nga ni ki du dem dañu fàtte yalla mi nga xam ne moo yaayam xana xana kon mom du dund ba toll ni xana kon mom du am teranga ani ñamu masé lon kan moko ci ëppalé ma sha allah yalla na yok ba nek président de la république en 2024 mom mo nek initiateur li babakar lam waxon duma ci delu mom sama serigne la moy sama kilifa dama ko gem ndax serigne babakar si mi sama yaakar ki to dama ko gem musuma ko woyo turam sama serigne la koy woowee ndax man mo la gem lam wax duma ci delu president Malick Gakou bëgg jigen ñi bi may def formation musuma xalaat ni wa gëgënu yéenu parti Faty ñu ci jot tax boba dama 6 sama jigen ñi andon ak man rek ñooñu laa daan formé ñu liggéey di jaay ba am suñu kees ki leen formé tey rakk la ci man maa ko yar sama kër mu am man dama sëy toog lu yàgg aw ma doom sama yaay jël ko mu am cinquant mu jox ma ko may yar ko ba mu am jëkkër mu sëyi kii ngeen gis na mooy sama caatu yaay ñun paas lañ ko jox kenn fayu ko ndax dégg ngeen loolu mu déggal ma lool itam macha allah ñaanal leen ma bu baax yàlla yokk bi ba li ñu ko def ci professeur muy jàngale mu dem ba nekk leneen ak leneen ak leneen ci loolu darajay rasulilaay président Malick Gakou mu ne képp ku jigéenu grand parti nañu dugg ci département bu nekk mu seet commune bu nekk ñu tànn ci fu ci nekk ñaar wala benn jigéen ngeen daje ñu former leen ñu nekk ay formatrice yéen ay formatrice ngeen kenn formé wu leen sànni leen déedéet dañoo bëgg ngeen nek ay formatrice dugg ci biir commune di formé jigéen ñi yu grand parti ak yeneen ñu dul grand parti pour réew mi ëllëg bu président Malick Gakou nekkee président en 2024 entrepreneur yi bari président Malick Gakou mooy ki nga xam ni moo mën a génne coono bi ñu nekkee ñun fii ci Sénégal est-ce que xamoon ngeen ni nekkoon na fii chef de cabinet bi Famara Ibrahima Sagna nu mu bare woon xam-xam xamal ngeen ko ñi ko xamul xam leen ko mu nekkoon fi président conseil région de Dakar xamoon ngeen ko te mooy benn doomu banlieue bu fa nekkoon lu ngeen xamul ñun banlieue zaari nañu kontaan mu wëlbatiku nekk ministre des sports fa nekk ministre di commerce bi kiy wax léegi mu bàyyi fa lépp ba mu xoolee gisul lu mu xam daf ko ne tegg ni man sama population ñoo ma gënal. gisuma sama bopp ci lii. ñëw créer grand parti ñun ñii ñëpp tey ñu fi toog jigéen ñu ñaaw ñi macha allah ànd ak moom ak ñeneen ñi nga xamante ni coono lañ jotoon formé. mu ne sama population ñoo ma gënal damay ànd ak ñoom liggéey pour sama population jigéen ñi am métier dama ne ñun dañoo bëgg bu ñu faloo. bu ñu liggéeyee ñu ne Malick Gakou ak équipe liggéey nañu kenn du wax état liggéeyul la tugguma benn tur état liggéey na waaye formé wul woon ay jigéenam comme nii état liggéey na waaye formé ay jeunes am te président Malick Gakou ma nga am programme pour jeunes yi mi ngi ci bourse yi xam naa ci dara bis bu ñuy jël suñuy seen diplôme yi ñi mu may bourse ñooñ dinañ taxaw wala seen ndey ñu ñoo ngi nii ba barki démb boo njaay sama téléphone lañ fi mayee bourse ville de dakaar moo ma ko chargé yaay bu ma gis mënoo fayal sa doom boo ñëwee ci man ba tey ji bu ngeen ko amul bu ngeen waxee ville de Dakar may leen seen doom jàngi yàlla may na ma loolu te defal na ma ko teg ngir moom moo moo tax loolu président Malick Gakou moo ko waral yéen a may dégg bu baax ku feebar mu faj barki démboo njaay bi suñu doom yi wàccee liggéey fii ci Tiwaawan man bokkoon naa ci ñu ànd ak délégation bi yóbbu ji don yi bàyyiwul dispensaire bàyyiwul hôpital fondation Solidarité Partage loolu dong la fi nekkee jàppale ñun jigéen ñi nga xam ne dañoo sonn te nag li ngeen xamul sukkali Sénégal xam ngeen lu ci am bu faloo jigéenu biir bu yàlla def nga ëmb ba ba ngay wasin ba doom bi di am un moom président mali Gakou moo la yor tàccu leen loolu. ordonnance wàcc nañu bu 2024 février ca ngoon jéeg bu doon ëmb man ndax damay ëmbi ndax ordonnance day wàcc mu sa ñaar moom sukkali senegal daf ci am lu ngeen xamul sukkali Sénégal loolu mi ngi ci. am na ci xale yi jàngi woon te amuñu diplôme ak ñi jàng te amuñu diplôme entreprise yi dinañ tëji ku jàng ku jàngul di nga liggéey ndax bu boobaa journal yi day commencé waat xëy 8 heures wàcc 16 ñu dafa pointé la fay la nga dem ñibbi yor sa kër métit bi day wàcc waaye seetlu leen li xew fan yi dañuy weddi de ni 300 nangam diigul waaye démb ci fajar. juróom fukk ak juróom benn yi di ndar ñaata nit lañ fa génnee cinq yi ñaataa ca dee trois kon ñaara dund ci juróom fukk ak juróom ñett waaw loolu lu ko waral sonn suñu doom yi bëgg ñoo teral naan barsa wala barsàq barsa naa yegg barsàq wala naa dee yal na yàlla dooleel sàmbal ñu suñu njaboot bu président Malick yu yéegee loolu jeex na entreprise yi ñu tëjoon yépp dina ko tijji suñu doom yi mën a liggéey loolu dafa bokk ci sukkali Sénégal bu ñu leen laajee seen président nangam ngeen ko suñu président bu yéegee ko ëmb ba nga am at sa doom wasin ba am at ordonnance doo ko jënd yow doo fay sax fare boo ëmbee nii mënoo sa bopp Babacar mi boo ko seetsee moom xam naa ne du la bàyyi ngay yeggi foofu waaye boo yeggee ci moom mu yor lépp allah. kon ñun suñu président moy ki nga xam moy idéal suñu président moy pee moy ki ñu tan moy ki nga xamanteni Sénégal mom la tan ciow li limuy bari yeb mi ngi ni tek buñu limé ñi dul bok duñ ko ci bolé buñu limé ñuy bok mu ni sama loxo ngi ni ma nga ca kaw ni lay def da ngeen ko mësa dégg ci lenn lu ñaaw da ngeen ko mësa dégg ci lenn lu lëndëm macha allah waaye sama gaañ damay ñaan bu 2024 yéen ñii ñëpp ngeen dugg ci euh, communes yi ngeen former jeeg yi former xale yi xale yaa ngi ñëw seen bos a ngi ñëw bu ñu paree région de Dakar ci xale yi la ñuy ñëw ngeen former leen bu bu 2024 bu suñu président bi nga xamante ne candidat à la candidature buñ ko falee ca ngoon réew mi neex jigéen ñi liggéey. Jigen mooy kër jigen mooy góor jigen mooy jigen parce que mooy jur mooy kër mooy góor mooy doom bu jigen baaxee bu taxawee bu mënee dépense du manqué yéen da xam ngeen xew ci kër gi sama bos ak ñeneen ñëpp ci yam ku bëgg a lekk lu neex buñ la ko joxee di nga cof de lii nag bu ngeen ko jàppee lii tey nga xam ne ñoo toog fii ci kanamu monsieur le maire mu jàpp si kenn joxewu ci dërëm man commune ba ma dem dañoo cotiser même sama commune dañoo cotiser man sama commune dañoo cotiser commune bi nga xam ne madame la maire Aminata Kanté moo fa nekk dañoo cotiser commune am moom moo recevoir ñaari commune ak bosom muy ñett kenn joxewul dërëm xaaju leen ma woo Pikine woo euh, euh, Tëngéej ni leen bu kenn cotiser monsieur le maire nee na Marème la ko wax bu kenn génnee dërëm kon sant yàlla bu ñu amee président bu baax ngeen am nii suñu maire bu baax am Aminata Kanté nag jigéen ju mën góor la. Mm-hmm. def na lu mu mën. daf fi nekkul nag ndax da koo fekk màkk ndax xam naa bu ko fi fekkoon nit li monsieur le maire mi def dana ko def. waaye lu manqué rek ñu ngi ko dëndal noonu mottali nañ ko. macha allah kon suñu maire yi nga xam ne muy bu góor ak bu jigéen ñu am ko yàlla na leen yàlla dollee taxaw yokk leen ba ñu yëg ko seeni grade yokk ca kaw ñun ñii ñu fi nekk nekk ci nekk ci biir grand parti yàlla may ñu ñun ñii ñëpp grade. xam ngeen lu ñu président Malick ko waxee bu ñu ko yóbbulee carte bi daf ñu ne organiser wu leen ngeen pare ma may leen xaalis ngeen liggéey loolu mooy indi lii dañ koy gëm leen ko du wax di bàyyi de mën naa yeex ndax nit dong la waaye du wax di bàyyi bu ñu waree leen Ndakaaru ba mu jeex ba yéen ñi tey suñu jigéenu grand parti taxaw mu war leen a jox seen euh, attestation jour boobooy neex te boobu nag bëgg naa kenn du ko defee fenn dañuy baare yoonu aéroport bi ñu xam ni jigéenu grand parti formé nañu ay jigéenu grand parti ak yeneeni jigéen ak ay xale ay mag ay ndaw yéen na bu ngeen fi jógee lenn rek laa leen dénk mooy sama wax ju mujj dama bëgg bu ngeen jógee fii ngeen uti ji NINEA ngeen uti ji registre de commerce ngir uti ji carte artisanale dama ko faté indi sama boss ku bëgg a entreprendre da ngay matal say këyit bo fuñu woté foire nga dem fuñu woté compétition nga dem fuñu woté lenen nga mëna dem buñ len entre def ngeen jang li tay ngeen nek ay ngeen xamné ay formatrice ngeen ngeen dem tëdd seen kër dedet bu ngeen xeye ngeen lijeenti seen këyit yoyu ndax ngeen mëna compétir compétition bi dafa and ak nga ni sa këyit muy carte commerçant muy euh, registre de commerce muy ni na ni foire fu jëm dañ leen di wo yeen jigéenu grand parti soxla nañ leen du deug man loolu la leen di ñaan di leen di wax malik Gakou mi nga xamni mo waral li muy suñu candidat à la candidature en 2024 yeen ñep ngeen jappalé ko ngeen teyé ko tété ko bu kenn ñooru bu kenn siis kenn bu kenn def nen lu dul vision rek 2024 c'est le candidat idéal président Malick Gakou jërë ngeen Kumba Bala balaa ma ne nuyuwaat nag dama loolu lu mu leen nettali ma dugg ci sable bi dafa am lu ma dal te bima ma légui la ko la ko Kumba leeral. xam nga man yàlla dafa dogal dama bëgg a maafe bi mu duggee ci saal bi ma ne yii mais ñii tege tege lañ doon defar sama xol bi sedd ma ne yii kii moom xam naa ne ay maafe yu neex a ngi ci kontaan bi may toog fii li may te pot yi laay xool bi ma toogee léegi nag nag ku ma kayte lii tege dëgg la mu ne ma noo saabu la <laughs> ma ne ko mais formation bi neexoon na lool waaye nag man tege dëgg laa ko tegoon ñu ne ma saabu la bon mais c'est pas dinaa ko dinaa ko muñ <laughs> kon nag euh, maa ngi leen di nuyuwaat ginnaaw bi ñu leen dalalee ku nekk sa tur ak sa sant euh, xëy na bii paa nuyoo bi nag dañ koy def ci turu le président El Hadj Malick ndax tamit euh, lii bu amee comme ni ko Kumba waxee léegi ci initiative lañ ci accompagnement am la euh, kon nag ci turam maa ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal euh, di wax ne lii bi mu koy nësër ci bureau politique wax naa ko léegi ba ñu adopté ko mu dénk ko Kumba Kayta dañ joxe ndigal nañu war Sénégal yëpp. jigen yi fi nek bokk grand parti ñu former len utal leen formation yu melni ñu nek ay femmes yoo xam ne dinañ mëna entreprendre ngir mëna jël sen bop en charge ci yenn activité yi ci formation yu melni ak yenen ak yenen ak yenen lolu nak biñ ko décidé jox ko mbakayta ak équipe bu mu àndal ñuy wër nara fas wër Sénégal pour def formation faamu grand parti yeb ñu tambalé ko département de Dakar def ko département de Guédiawaye tay ñu fi ci département bu Kër Massar fii ci commune Yombol Nord bokk ko département de Pikine ak département de Rufisque kon tay la ñuy clôturer formation faamu région de Dakar euh, comme nous l'avons ko waxé formation yi aussi partie ko part bi def président a initié initier gis-gis buñ ci am way ñëpp xam nañu ne président Malick Gakou dafay dox ngir jiite ji réew mi ci tànk yooyu la nekk ñu ànd ci ak moom góor ak jigéen mag ak ndaw di dox ngir jëm foofu te am nañ yaakaar ne incha allah 2024 bii di ñëw sunu borom dina ko jox bopp réew mi. kon nag loolu ñu ngi koy dox guddi ñu ngi koy dox bëccëg te xam nañu fa ñuy jaar. am nañu moyens yi am nañu xam-xam bi am nañ ñu ci àndal kon na loolu incha allah dinañ ko dox ni ko war a doxee sunu suñu borom mayuñ ci ndam ndax way waxat nañ ko waxati ko tey bu ñuy tànn kandidat yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi bëgg réew mi amul kenn ku ci ëpp njàng le président Malick Gakou amul kenn ku ci gën a crédible gëna set loxo le président Malick Gakou ndax bu ñëwee da nga set loxo dañ naan ndax vous nañ ko dénk dara ku ñu dénkul dara mëno ko juger ndax loxom set na wala setul mais fu mu jaar ku Coumba Keïta wax ko responsabilité bu nekk mu yor ko ci réew mi jiite ay direction nekk directeur de cabinet nekk ñaari yoon ministre jiite ay fédération lu ne mu jiite ko conseil régional lu ne mu jiite ko ci réew mi ba tey taxaw kenn mësul génn benn dërëm bu ñu Malick Gakou moo ko luubal kenn mësul def audit ba jàpp ko régime bii fi nekk ku nekk mu tuumaal la sa musta xalaata tuumaal Malick Gakou kon nag kooku bu ñee loxoom set na mun nañ ko gëm te wax na ko moom ci boppam tey Sénégal munul jël benn mètre carré te ci Sénégal nga ne bii Malick Gakou bi mu nekkee ci nguur gi la ko jëloon wala ko ko nguur gi mayoon lépp lu mu yor moo ko moomal boppam kon li mu liggéeyoon Sénégal yi fi jaar yëpp liggéeyal na Sénégal delloo leen liñ ko dénkoon ñëw toog këram te kenn topp ko benn dërëm kon nag bu dee loxo bu set mun nañ ko wax kon càng na loxoom set na dëkk na ci dëkk bi aussi dëkk na ci Sénégal ndax ku digg yaroo diggante caare yu géej ak géejewaay yëggal tàppe jaar foofu ci biir banlieue bi doomi réew mi la doomi dëkk bi la doomi banlieue la te fii la yaroo ci réew mi nag jànge fi def fi lépp kon nag doomi dëkk bi la càng na loxoom set na mu juddoo fi yaroo fi ci kenn mësu koo dégg ci benn loxoor te loolu ñu doyee njiitum réew te fa mu jaar fu nekk aussi def na fa ay résultats réew mi lu loolu lañ ci soxla soxlawuñ ci leneen ku jàng am xam bu ma ne réew mi koo xam ne bi ëllëg bi ko joxee alal réew mi du ko luubal te ko dénk aussi mu mën koo doxal ba am ci résultat loolu yëpp fu mu jaaree wane na ko kon nag candidat nekk ci réew mi amul benn candidat bu gën. profil wala nga xalaat dab Malick Gakou ci profil moo ci gën a baax profil te boole ci loolu lépp bi mu paree nag ci profil yi njiitum réew mu nekk nit ku am yërmande aussi ndax lii muy defal jigéen ñi ku am yërmande moo ko mën a def xaarul ba falu ngir former leen pour jàppale leen ba mu toogee nga xam ne yorul benn ndomba tànk lay jël ca alalam di créer pour jàppale ay jigéen jàppale ay xale. man mii di wax ak yow am na ñaar ba juróomi xale yoo xam ne xam naa leen ñu ngi entre États-Unis ak France bi ñuy leen maali gàkku di leen ANCAR di leen bi ñu amee seen bac man mii maa ànd ak ñoom di dugg ci am ambassade ba ñu am visa te ñu ngi entre Amérique ak ak ak ak France di jàng te man mii maa leen jël seen visa ba Mali gàkku fayal leen ñu dem jàng bitim réew te bëri na mun nañu lim ñu bëri ci Sénégal jigéen ñi aussi lii muy def nii. bi muy créé fondation maternité solidaire wax nañ ko léegi pour jàppale jigéen loolu xaarul ba jël ay million, ak million du ko investir ngir jigen mata netu yu bari ci Sénégal bo demé équipé na len dama na and ak muy tourné ay mat ci Sénégal waxuma Dakar Sénégal la wax fu nek di équipé ay mat di len ko may ngir jappalé ay jigen ndax dana won bugul gis ben jigen bu muccati di am jafé jafé comme liko dal ci yaayam kon nak amna yermane ci xalé yi amna na ci jigen ñi noonu mi defé ci walu ñang di ko def ci jigen noonu lako def ci sport ken waxtu ko lim fi def ken waxatu kon lu nek mu ngi koy jëm ci alalu bopam ngir dimbali ay doomu aadama te yàlla sax moo xam dina falu wala du falu mais moom ni ko yor ak xol bu sedd ngir dimbali askanam kon am na yërmande ci askan bi te domaine boo dugg rek Malick ko dugal na ci loxoom ngir accompagner jàppale ay ay nit ay juma jàkka yi këru diine yi fu nekk mu ngi fay jël alalam di ñaq di ko fa def ngir dimbali te xaaru ci dara du xaar sax koo ko ko jërëjëf da koy def rek ngir yërmande ak bëgg réew mi. ak ñeneen institution yoo xam ne ay boromi directeur surtout yu mag bu leen di accompagner ngir ñuy taxawalee entreprise yu mag fii ci Sénégal ak ci bitim réew ngir mën a liggéey kon kooku xaarul ba bëgg yor réew mi wala bëgg koo yore wala ba yore ko tax muy jàppale ay doomu aadama kon noonu la ko yàlla bindee kon nag ginnaaw bu jàngee am xam-xam loxom set yàlla may na ko xol bu rafet boo xam ne ci njiit boo ko jiitalee mën naa yërëm askanam ndax askan bi ku leen bëgg a da ngeen di yërëm. bu yit ba amul yërmande baaxul ci askan te moom am na yërmande te noonu aussi nag lañ ko respecté fii ci Sénégal ak bitim réew Sénégal amul kenn ku mën a lim Malick Gakou ñu ne cam ñépp a ko jox cër jox ko respect bitim réew it bu ñu eggee diggante France Pologne ga mu jëm ba États-Unis fu ñu ànd ci bitim réew dañ ko jox cër bu mat sëkk day dem bitim réew sax ay kilifay bitim réew di ko dalal ca palais ba muy waxtaan ak ñoom ak ci fii ci Afrique gi ñu nekk kon Sénégal ak bitim réew jox nañu ko cër kon nag doomu réew mi mel noonu bu ñu ko amee ci réew mi kat bu taxawee ne bëgg naa jiite réew mi mais loolu lu jaadu la kon def ko ngir boppam utulu ko boppam ndax yàlla may na ko teraanga ku nekk ku xam Malick Gakou na xam ne bu doon ut lu mu dépensé rek lu mu jëndee oto rek nag taxul muy sonn ndax yàlla suturaal na ko ci kon nag bu amee loolu yëpp daf koo yéene nag delloowaat ci réewam kon loolu tax dara rek tax muy sonn. te lol nag mo indi nak mo ubi buntu formation bi ne ku Keita ak yeen ak jigen ñep andi len ngeen formel ma jigen yi nek ci parti bi. lan motax bu ñen formé ngeen am tuti xam-xam dem formé ñeneen te li ngeen def kenn ku nek yeen mo dem kërëm def lo xamne entreprise bu ndaw la yor ci biir kërëm yeen ñi ku nek fi nek ni yeen ñi tok fi ku nek chef d'entreprise nga di. Mhm. ndax li nga dem sa kër bo démé la nga koy defar doo ci oo kenn yaay oo sax ay manœuvre ñu lay jàppale nga defar produire monter jaay jël sa bénéfice boo ko defee benn ñaar tey nga produire fukk su ba nga junni ginnaaw su ba nga produire million butéel bu ëllëgee bu xaalis ba dee banque nga ko jëmee di ko fa denc kon yéen ku nekk ci yéen ñi nekk fi nekk chef d'entreprise nga te noonu tamit lañ leen formé pour ngeen dem forme yeneen i chef d'entreprise kon nag loolu président xalaat ci lii ci jigéen ñi bëgg jigéen ñi soqali ko rek moo tax mu koy def te noonu aussi la koy defee ci xale yi ak yeneen couche yëpp ku nekk mu jéem a nu mu lay accompagner ba doo ëllëg sax doo xaar président ëllëg da ngay am di mën a defal sa bopp yëkkil sa bopp di tegal sa bopp bu ëllëgee nag bu yàlla joxee réew mi nag bañ accompagner leen ci lii booba dafay gën a neex gën a nooy ndax dina fekk bu ku nekk jeen jox lañ xam-xam boo xam ne ëllëg bu ñu bëggee jàppale doo ñuy tàllal naan may ma danga naan man lii ma soqalikat am million maa ngi ciy mais soxal naa ci financement wu 500 millions boobaa nga fekk yow meun nga eulbeuti 1 million jël 500 millions jox la nga liggéey créer sa entreprise kon buñu bëggé réew mi dox fofu lañ koy jaar mais du jël xaj du ko may nit ñi ñukoy def seeni poste diko démé ay ngenté déedéet mais ko utal xam-xam ba paré ëllëg di nga mëna facilement jël financer ko ba mom mu taxaw mëna a taxawal ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nak buntu bi buntu la rek ba ubil mais da ngeen wara xam famu jëm famu jëm te noonu lañ koy defee ci jigéen ñi dafa ko ci xale yi def ko ci couche yëpp bu ci nekk yu mel ni président am na ci gis-gis boo xam ne bu ñu ko defee ëllëg li ñu gis ci bitim réew ndax bitim réew boo demee ñiy liggéey di fay ko salaire bari wuñu ñi ci ëpp ku nekk yaa ngi sa activité bopp nga di ko doxal soxla woo sax ñu lay fay weer da ngay demal sa bopp di liggéey di produit bu ñu leen kaa ñu fay la weer nga ne merci ndax ku nekk am na xam-xam boo xam ne bu ñu koy yeewee ci yow rek jox tuuti moyen mën ngaa dem président Gakou fofu le bëgg a jëmee réew mi comme li def fii exemple la mais li bu lawee ci Sénégal yep, je pense que réew mi mën développer ba kenn ki yéen du soxna utal ma salaire wala utal ma ma def li ma def la kon nak lolu je pense que mom moy yoon bi kon nag ñu leen di féliciter bu baax ci turam di féliciter Koumba Kayta ci taxaway bi mom ak ñeneen formé ak formatrice bi oui xam nañu relation ma ak formatrice bi xam nañ aussi sacrifice yu mu def ngir mettre seen disposion ci xam-xam bi ndax xam-xam dafa chair xam-xam dafa cher kon nag moom bu ma nee ànd ak ay sëram ak ñi mu àndal ñëpp ñu ñëw jël xam-xam may leen ko lañ leen ko may dafa jël xam ànd moom ak ay euh, sëram yi ak ñi formatrice yi lañ leen may xam bi kon nag loolu Kumba ñu la ci sant bu baax ak formatrice yi nga àndal ñëpp ndax bu la neexoon lii nga def fii mën nga ko jaay ay millions yu bari ñu fay la pour nga former mu nekk ay millions yu bari mais da nga ne je dama koy mettre à la disposition du président Malick Gakou ndax xam naa lu mu yéene ci jigéen ñi xam naa askan bi defal ko ko gratuitement ànd ci ak sama formatrice yi ñuy may jigéen ñi xam-xam bi kon nag ñu lay sant bu baax di la gërëm ak jigéen yi nga xam ne nga ñoo formé leen euh, euh, kon nag loolu euh, ñuy gërëm waa région de Dakar yëpp ci taxawaay bi aussi ndax bi ko président bëggee formatrice yi taxaw yéen boo leen taxawul aussi wan nañu bëgg nañu bëgg nañu baax bëgg nañu am xam-xam ndaxte lu ñu bëgg a bëgg a former boo fekkul ku bëggul ñu former ko mais mi du dem kon tey lii yàlla dañuy sant yàlla ba li président Malick bëggee dara Malick Gakou bëgg dara am ci ñu ko ko defal mais am ñu am aussi ñu bëgg li muy def mooy li ngeen def nii kon nag yéen tamit ñu ngeen di sant bu baax yéen ñi ñu nangu ñu former leen ak jigéen région de Dakar bi yëpp. ak euh, tay ñi fi dajé moy département Kër Massa département de Pikine ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di ñaan Yalla aussi xam-xam bi ngeen xam ne jëlee ngeen ko fi ngeen lawal ko ngeen sécuriser ko mais ngeen lawal ko bo farmé ñeneen jigen yo yoo xam ne woy famille grand parti lañu wax mais bo leen génnee mun ngeen farmé bép jigen bo leen gis mën ngeen ko farmé ndax jigen ñëpp euh, réew mi rek mo ñu ñor xeyna grand parti tay moy auto euh, bi ñu yor di yik di ci mëna daw rek mais fu ñu gis jigéen ci Sénégal rek war nañ la teral war nañu fexe ba nga am dara kon yéen boo génnee xam-xam bii ngeen wasaare ko ba jigéen ñi mën cee jëriñu ndax pour réew mi développé rek moo tax ñuy euh, ñuy sonn ci lii. Euh, ñuy gërëm bu baax waa département de Kër Massar ndax ñoom it euh, du yàlla bi lii amee taxaw nañu juróom benn commune yi fi nekk yëpp taxaw nañu yëmbal sud a ngi fi suñu jigéen yaa ngi fi yëmbal noor a ngi nii ñoo leen ñoo dalal Malika a ngi fi. Kër Massar Nord ngi fi Kër Massar Sud ba jaxay kon commune yi nek ci département Kër Massar yeb ñew nañu seen i présidente yi di jité parti ba ngi ni ña fa nek timit nek ay responsable ñi ngi ni tok da bañ a lim ndax baña a kenn euh, mu mère ma mais ñom ñep département bi yeb ñi ngi ni tok jital seen doyen nga xamne moy euh, yaayu parti bi moy la présidente awo fay mo buñ ko tuddee ci département Kër Massar ñëpp mën na leen a boot ndax mom nak euh, jigéenu président nek aussi yaayu yaay ci grand parti bi ginnaaw bu ñu jiitalee sunu yaay la présidente Mata Sy kon nag euh, ci loolu ñuy gërëm bu baax waa département bi ci ni ngeen def yaatal ñëpp xaj ci ngeen dalal Pikine dalal euh, Tëngéej ndax wane na ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Pikine avant ñuy am ci département bi fa lañ daan daje di fa réunion ñoo bokk lépp ñoo Tëngéej ñoo bokk lépp ak Guédiawaye ak ak dakaar kon nag ñu ne sant bu baax yéen bi ngeen déplacé woo yéen waa Pikine ak waa Tëngéej ñoo xam ne ñun ñëpp benn lañu. ñoo bokk nday ñoo bokk bay ñuy bokk suñu formation kon baax ñu ngi nuyu bu baax seen coordinateur coordonnateur xam nañu bu baax suñu frère lañu yeen ñëpp ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di nuyu bu baax aussi nak wa Yeumbeul Nord yi nga xam ne ñoom it ñoo dalal département bi tey euh, sous la coordination de madame le maire euh Marème Cham and ak wa jigéeni département bi ak jigéeni commune bi yëpp ñu dalal ñëpp vraiment tumi duma lim parce que mo léegi mën naa fàtte kenn mu mere ma te lim dafay mais ñoom ñi ngi ni toog xam naa leen bu ma nee jigéeni commune bi rek lim naa ñëpp kon nag ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan formation bi ngeen def eh, yal neen ci yàlla wërsëg boo leen ci yaakaar yéen nag suñu borom defal leen ko ah, ñun ñu ngi fii rek ànd ak yéen di leen accompagner ndax dëgg yàlla eh, eh, président Malick Gakou wax dëgg yàlla ni ku ma waxee lépp lu mu yëkkati bu joxe ñee rek ñun ay soldaar la ñu dañuy daal di exécuter dañu dañuy exécuter kon nag moom lu mu joxañ ne lii baax na rek ñun dañuy exécuter ci loolu la ñu nekk kon nag ñu leen sant bu baax di leen gërëm kon nag tey la ñuy tëj fii formation région de Dakar. ñu souhaité leen bon vent pour que li ngeen di continuer ci biir Sénégal ba Sénégal yépp 46 départements ngeen dajal ko te ba ko dajé inshallah dina baax ci réew mi te lo dina baax ci Sénégal. ñu leen sant bu baax di leen gëm di daanel nak di gërëm aussi euh fi ngeen ko défé moy le centre Afat suma jigéen euh, Khady Gueye moom mom centre bi. afaan benn centre jigéen la Khady Gueye elle est adjointe au maire mais suma jigéen la suma xarit la mom bu yàgg la ñu ànd donc moñu ñu mettre salle bi de euh, centre bi à notre disposition euh, ñoo accompagner and ak suma xarit aussi suma frère monsieur le maire par Alioune Mbaye mom dem ba mi ngi fi moy coordonné yi fi centre bi fek ngeen fi léegi aussi monsieur le maire Gérard qui est aussi conseiller mom ku bax la moom Gérard mi ngi fi ñëw dalal len vraiment ñu wa Afat ñu ngi di sant bu baax di leen gërëm euh, ñi ci dess nak duma goor góor ñi moom jaruma len di gërëm tuddu ngeen leen légui mais comme tay bu su jigen ñi la ñom dañoo ñoo langa musi rek. mais tey moom bésu jigéen ñi la mention spéciale jigéen ñi mais du tere aussi <laughs> du tere aussi ma ma ma ma sagal leen rek gërëm góor ñi kabi du ma leen lim ñoom it ci taxawaay bi ak jàpp bi lépp rafet na ñu ne sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa barakaatu. maa ngi nuyu ñi fi daje ñépp nag. di jël nuyoo bi di ci jiital monsieur le maire baabakat Ndaw ndax comme sama kilifa la ma dend ak moom jox ko nuyoo bi mu jàllalee ndax man cant laay def monsieur le maa ngi lay sant bu baax ndax yow yaa ma yow yaa tax ma coordonné lii nga xam ni mbégte mu rëy laa ci am ndax mbégte mi ñi nga xam ne dañ maa fekk si ci fii ci ci commune bi baax loolu nag ànd ak man démb ba tey ñu jaxasoo ba mel ne ñu bokk ndey ak baay ñaareel bi sama camarade yi nga xam ne dañoo nekk ci commune bi bëgg grand parti ànd ak man coordonné lii ñee ngay togg ñoo ngay yàq yumaane moo togg togg yi maam njaay lépp luy naan mi ngi cay ma ngi koy lijjanti waa ñoom mareem Anta Anta Anta bu waruwaay ñëpp lépp loo xam ne rek war na leen rek ci teeru gan ak teral gan rek jaar nañ ci te xam naa ne ñii ñu doon teeru ak ñi ñu doon teral gis nañu loolu vraiment dara manqué wul te loolu lépp li ko waral yow la. dooley jën ndox dooley ya ray yaa ñu jàppale yaa nu sagal ndax bu naga ne nga ni mariam ak ak ak Kumba ta nga wo département yi ñom ñep nañu cotiser ngeen cotiser ta ko ñom ñep dinañ cotiser ndax bëgg malik li waye da nga ni lepp jël nako añ ba reer ba naan lepp mako gadul sama bop def nga lepp def nga lepp kon man sagal nga ma yalla na la yalla sagal loo yooti ci parti bi yàlla na ko yàlla teg sa loxo yàlla bu yàlla tas sa yaakaar yàlla bu yàlla doxalee dara sa digganteeg Malick Gakou maa ngi la koy ñaanal te yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonent bi dikkaat nag ci Coumba Keita mi nga xam ne ba nga ma boolee ak moom dama koy woo guddi dama koy woo bëccëg ndax mbir ku la ci jiitu gën la caa xam ki la jiitu ci kër gi moo lay wax fi ngay tooge mais fakkataluma benn yoon réeralu ma benn yoon su ma ko woowee damay waxtaan ak moom mu expliquer ma waxtaan ak moom tubaarkàlla macha allah kumba maa ngi lay ziyaar yow itam bu baax di kontaan. yeneen responsable femme yi ci yeneen communes yi nga xamante ni ñooy département bu Kër Massar muy muy muy muy Fatmata Ba ak ma euh, Adja Awa euh, waa Yëmbal Sud euh, Aminta ñoom ñëpp ak nu mu tuddati waa yëmbal euh, noor Kër Masar noor euh, Umu Salama dañuy waxtaan lépp lu ci lu ma ci waxtaan ak Kumba ba pare kenn ku ne dinaa la woo kenn ku nekk wax ma ci sa xel bu xalaat bu rafet ñu àndandoo jëfe yépp damay ñaan yàlla boole bi mu ñu boole yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar bu ma jógee ci foofu nag dem ci dalinko bi muy monsieur le président parce que monsieur le président comme euh, euh, euh, initiative bi mu jël ñun la ko jàppale parce que former les formatrices ñu dem former seeni base loolu ku la koy defal mi ngi lay jàppale ci sa base mi ngi lay jàppale ci sa base nga dem jigéen ña fa nekk nga former leen ñu am xam-xam liggéey am njariñ jariñoo ko ñoo loolu ku la ko defal mi ngi lay jàppale ci sa baas kon nag loolu mu loolu mu ñu yéene wa jàppale ñu ci liñ ci yaakaar yàlla bu mu tas maa ngi leen di ziyaar yéen ñëpp nag di kontaan lii nga xam ne nag liggéey nañ fi te man itam maa ngi yéen ñoo ko ànd xam naa ne mokk na ci yéen xam naa ne kenn ku ci dellu ci sa base ah bu la yàlla yomba yombalelee rek loo def matière première incha allahu rabbi di nga liggéey yàlla na nu yàlla may ñun ñëpp ñu liggéey te jariñoo ko waaw nuyu naa ñëpp ziyaar ñëpp kontaan kumba kontaan naa trop waaw kontaan naa trop monsieur le maire félicitations na ma ñëpp tàcculaat nag le maire Babacar jiital na ma te fakkatalu ma de munoon na ma ne ay ca wool sa nawle yi ba pare nag too fee naan ma defal bilan ñaari kilo ceeb lu muy jar ñaari kilo soble lu muy jar deful lool de dafa yëkkati lu mat jox ma ma jox sama doom jee yu maa ne caam mu def ba mu baax tubaarkàlla yàlla nañu yàlla jàmmal ku def lu baax dañu lay gërëm gis nga Pape li may defal ci jigéen ñi sax man mënuma ko yàlla xam na ko mi ngi ci suñu gannaaw di ñu ëppale guddi ak bëccëg bii moom mi ngi ni 22h woo naa ko wax ko compte rendu lu ñu yendoo yëpp wax ko li ñu fas yéene suba te bu fekkoonte ne bu ñu ko waxee day yàq ci defaral ñu rek lay nekk. waaw na ko ñëpp tàcc waaw na ko ñëpp tàcc mangook xoolal confiance bi monsieur le maire am ci yow monsieur le maire defu ko de yow yaa ko jëmbat yow yaa ko jëmbat de. buggoo kenn ku da damay ñëw ma ni ko waaw dama kii damay bari dige bari loolu daal di dem ndax du gàntu kenn de léeg ma ànd ak ma ma ne ko baax na wax ko monsieur le maire baax na yaa ngi nangu loo xam ne ba nga yegg ca moom da daa sànniwul lenn ci ginnaaw moom dafa nangu lépp ma ngoog ma ko yàlla fay digganteem ak léeg ma ne ko paap li mu nangul Malick mënaloo ko ko waaw li mu nangul Pape euh, ngi ne bisimilah maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di kontaan nag ci initiative bii nga xam ne président Malick Gakou initié na ko bokk ko Coumba Keita la présidente nationale ñu di ko fas yéene doxal nag ci biir euh, Sénégal yëpp di kontaan ci fii ñu ko def fii ñu ko tëjee tey parce que. région de Dakar tey lañ la ñuy tëj fii dans la commune de Yëmbal ci département bu Kër Massar département bu Kër Massar di kontaan trop nag ci Babacar Ndaw damay ñëw ci Babacar Ndaw bala maa ñëw ci Kumba Keita Babacar lu mu am du chance mérite la aw fay dafa ne 98 99 98 la Babacar bokk ak Malick Gakou ñuy ànd di dox ba 2003 ba 2002 Babacar di doog a am dara. Babacar dem na moom dong élection nekk adjoint au maire ya fële ville de Pikine Babacar doxal na boppam ànd ak Malick gàkku ànd ak moom ci lu neex ànd ak moom nag ci lu naqari ànd ak Malick gàkku ñu dañu doon defaral ay cellule booba cellule yi moom la Malick gàkku Pape Camara sëñ Mamour ñas Mamour Niass mi gaañu noonu la Mamour mi gaañu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñuy ñi falilaa xam du sax am na ci ñoo xam ne ñu nekkatuñ fi toujours Babacar mësta Babacar li ma neex ci moom mësta gestu te kuy dox di gestu fa nga jëm ñeme woo ko ndax moom fa mu jëm da koo ñeme te amu ci arrière pensée amu ci doute dafa viser rek Malick Gakou moom teg bëtam ci moom ñun ñi nga xam ne nag ñun ñoo àndoon ak moom sama genre genre aw fay gi ñun tamit dañoo jël suñuy bëri teg ko ci Babacar teg ko ci Malick ndax protocole nag du caaxaan nekk chef protocole koo xam ne kii président de la république la du caaxaan ku ñu wóolu dëgg moom sa loxo moom sa làmmiñ moom say bët ndax bu doon ne lu ma ko xamal wax lu ma ko gisal wax lu ma ko gental wax bon tey du fa toog ba lii fekk ko fa waaye moom lépp lu mu am nag da ko méritoo mu dox ci nag dox bu rafet tiitul fërfëriwul wanewul boppam xam nga li gën a soof ci àddina ñun sax amuñu droit nekk nit koy wanewu ndax buñ doon wane presiden suñu président do woné wu moom tey bu ko neexon mu baña nek président baña dugg sax ci bayyi politique ndax yalla wërsegal nako li muy am bi pare mais bo waxé dama nan yeen ñima andal sama problème mom lool lay wax da nan yeen ñima andal sama problème mais Fatmata bu doon man ak man la rek bayina politique waaye nak Sénégal la tax ak yeen ñi ngeen xamné yeen nyundeng yagg yàgg di àndal Babacar Ndaw mérem bi mu nek ñun dañ ci sant di ci gërëm ndax ko fi néna dans toute la région de Dakar moom dong moo fii góor gu nekk maire mhm. du noonu kon nag ñu ngi ciy sant di ci gërëm fii ñu ko defi tamit muy yëmbal gii ñu ñëw fekk fi Marème caam mii mu jël lépp teg ci loxoom ba ñu ma waxee dama ne Marème Thiam doxalal waaye lépp lu mu ciy doxal nag da koy waxtaan ak man te Babacar tamit yàqu ci dara ndax lii muy def mënu ma ko xar day weesu mbote mënu maa def 98 def 2003 am na loo xam ne dama koy bàyyi xale yi 2023. dam am na loo xam ne lii nag dama koy bàyyi xale ñu di ko doxal ndax lii mu ko doxalee dafa rafet yaatal na yaatu na dal na am na tekk ndax looloo tax ñun ñëpp ñu nekk fii yëf yëpp neex Babacar tamit zéro ba quatre cent mille xaw ma cinq cent mille def na ko ci lii ñun cotisé wuñu dërëm departement yëpp dañoo cotisé waaye ñun ñun cotisé wuñu ñu bootaale nag waa yëm waa pikin ak waa Tëngéej kon nag ñu ngi lay sant Babacar bu baax jërëjëf ma ñëw ci Malick Gakou da ngeen may may de Malick gàkku dëpp bi ñu àndeek moom région de dakaar dafa jël Babacar mi teg ci wetam jël ma teg ci wetam ñuy doxal bi mu nekkee ministre ku ne xam na ne ministre ku tiit ku ñu ko jox bu ñu la rendi tamit dina ñoppati doo jóg waaye ba mu gisul lu mu xam daa bàyyi la tax mu bàyyi lenn ci la bokk lenn moom ci la bokk fii ma nekk nii su ma fi nekkee la ma bëgg a def ci banlieue bi li ma bëgg a def defal nit ñi du ko mën a def loolu moom mooy la mu bëgg ci amu ko fa mu ne ko fa ñukk ne yekk bu farox dem wàccaat ci baas bi nekk ci liggéeyam di liggéey Moustapha Niasse ba mu ko bëggee diri naan ko fii ngay yem ak fële ngay yem da ko fa ne ñukk ba yekk yekk bu farox te tey defe naa ne bari nañu ko fa ne ñukk ne yekk bu farox tey dawali boppam ndax xam nga lan moo tax loolu yëpp ndax dafa gëm boppam dafa wane ne moom banlieusard la fukk ak dërëm la yemale kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm ku ma Keita moom moom dafa ñëw rek nekk rak bootu gëm léegi laa naan ko ku Kouma Keita xam nga la moo tax nga neex ma dangaa bëgg maali Gakou man ku bëgg maali Gakou bëgg naa la man ku cof Malick Gakou aw xaw ma la mbokkoowuma ci xaritoowuma ci dendndoowuma ci àndandoowuma ci man ku bëgg Malick Gakou bëgg naa la parce que Malick Gakou ànduma ak moom def def de yàllaa ñu boole loolu dama koy nangu ba mu àndeek ñun boole ñu nag ñun ñii dañoo ànd ñun ñëpp ñun tamit nekk def suñu bopp benn damay wax yàlla nañu yàlla lafal cat ba 2024 bii yàlla nañ ci nekk président de la république yàlla nag mooy sédd yàlla nañu yàlla sédd te mu jig ñu yàlla nañ yàlla sédd te mu jig ñu te ñu àttan ko ciow lu bari lek wéj wéj yeb yàlla xamna fi muy tek tànk bi yàlla na jël suñu tànk bi tek ko ci suñu diggu bop yi def ñu président de la république bu boba Sénégal dinañ am président banlieusar bu boba président dinañ xam am nañ président bo xam bi xaliss tax ko bëgg nek président ndax mom jékk na ba pare yàlla nako yàlla fal ci jërë ngeen jëf. bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu kep ko fi tok mag ak ndaw. di rafetlu teewlu bi ak liggéey bi di jël nuyoo bi nag eh, di ko teg ci loxol Mariam Thiam mi nga xam ne mooy présidente yëmbal ànd ak monsieur le maire Babacar Ndaw ak coordonnatrice Fatmata Ba waa Pikine ak waa Tëngéej di wax ñu teg nuyoo yooyu yëpp ci loxol président Malick Gakou من نتام ما تاخد بقى بريزيدا الله سما سما فرد الله سما رك الله بابا كان دومي آه، كumba لمتي وقت دفع رفت واي دنكو دندو اك موم 1999 خالي بسون جوان يالاي تاي دو تاي ما شاء الله كون دانيو نيان رك يالا لا فال لاتيات لا فال كو ني في توك ييب ماي ني فك ليباك تال du ñaan ñu fekk leen yeneen i instance yu gën a kawe yii di rafetlu nag initiation bi nga xam ni initiative bi nee nañu maali Gakou moo ko initié jox ñu présidente nag national boo xam ne mat na ko macha allah mante ci groupe bi nee naa xaw ma Kumba Keita mais bi ma taxawee buntu maire dafa ñëw mu ne kee du aw a Faye kon li ndaw si wax ci moom lu dëggu la grand parti ñii fi nekk yëpp liggéey rek laa gis ñuy def dégguma coow dégguma xuloo dégguma gengante walla maa jiitu maa jël ndaara amu fi ñun ñëpp benn lañ yéen ñi di xale yal na ngeen am lu dàq liñ ci am ñun mag man day def naa mille 2002 ba mille vingt 2022 nekk naa fi conseillère nekk fi adjointe pendant 20 ans macha allah kon man soxlaatuma dara sama loxo ci kaw gaañu nañu am rek di ma may di ma jox li ci sama wërsëg waaye yéen ñii di ndaw ak ñi ci nekk yàlla may leen ñu war a mën a appuyer yal nañu fekke lépp te tam yal nañ toog ba Malick gàkku dem bale ñu fekke damay wax ñu di ma ree ndax dama ne siis bi dafa amoon borom te borom nag tey ngeen dégg na sama goro la ndax fay laa sant jabaram sant fay dama koy gàttal rek mais kenn mosuma gis ci instance u APR wala ci instance u Pastef wala ci feneen ndax xale doo ko yar ba mu màgg di liggéey nga ne ko demal servir feneen demal sànni sa loxo ci biti déedéet dañuy naan yàlla mu am li moromam yi am dal na ko yàlla def nag ñu fekke ko muy suñu njiglaay ñu ñëpp waaw la aminte kante naan géej la ñëpp xaj nañ ci yal nañ ko fekke lañuy wax su boobaa yal nañu yàlla mën loo ci gàttal nag ma ñëw ci formation bi am na ko ko évaluer monsieur le maire gàcce ngaalaama wax naa sa ginnaaw dama koy wax sa kanam dama ne am na ñuy def di wax ak ñuy def nepat am na ku créer unité wax nga ko xam nga yëg nga ko te yëg su la neexee ne am naa unité ni moom te dafoo publicité am nga poulailler magique de ak jeunes yi soo croisé woon les bras rek kon doo falu fii tey waaye loo mës a dikk ci lacrymogène ak ca police centrale ñun jigéen dañ doon brassard rouge di leen fa fekk pour xale yi xam ko ma di leen ñaax nag ni na ngeen am jom am conviction engagé wu bu leen gis dara lu fat seeni bët lu dul liggéey te am ku leen may nag nga jël ku ñu sagal ñu jël monsieur le maire sagal nga ñu dara manqué wul ci formation bi ñëw nañ ci jàmm def ko ci jàmm produit yaa ngi nii rafet kaar macha allah du lu ñuy lekk nag li ma ci gën a neex ndax man ñii bio man mii bio laa diplômé agréé waaye yii ñu def tey dama saf ndax madaar ak saabu tukuleer yi duñ ci ndekki de mais lu am njëriñ la luy indi xaalis loo xam ne macha allah bu ngeen ko jaayee dootu leen tàllal kenn loxo kon ca kanam ca kaw ca kanam yal na lépp baax amee jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah ku ci nu nek ma ngi lay nuyu ci sa tour ak sa sant wa man la ñilan Diouf dekk jamagan wa Fass Sall moo fi yebal jamagan Diamaguène Pikine waaw ñun ñoo joggé Pikine commune commune de Pikine mais ma ngi dekk jamagan département waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant waaw di wax ci turu kii madame kii Kumba Kayta madame madam ñaa ñu ngi koy nuyu di ko sant bu baax te di ko gërëm macha allah démb yëpp bi ñu ñëwee mairie ba moom moo ñu indi ba fii comme li kii wax man barki démb bi may bi may xamanteek moom sur téléphone laa xamanteek moom waaye mu nekk ku baax nag nekk ku oyof ndax bi ko wooyee ay 23h di ko laaj man ban oto laa war a jël pour ñëw fii après dañoo mujj di xàqataay ci téléphone mu mel ni ku ma xamante moom ay at kon moom it ku baax la ñu ngi koy delloo njukkal bu baax waaw di nuyu monsieur le maire Babacar Ndaw waaw moom ku man ku man ku ko sopp laa ku ko bëgg laa ndax heure bu ñu demee réunion damay damay damay damay constaté benn affaire su ne maire Babacar Ndaw rek jigéen ñëpp dañuy yuuxoo waaw loolu moom man fekkee naa ko te seede naa ko si moom waaw maa ngi koy nuyu bu baax moom it di ko gërëm sant ndax démb añi neex na naan nañuy sedd naan ndox bu sedd ba ba ñuy ñibbi tey tamit tey tamit la même chose macha allah ñu ngi lay sant monsieur le maire bu baax di la gërëm di la ñaanal lépp loo loo am ren yal na ko sunu borom ful bu déwénee waaw di wax tamit si turu madame la maire Fatou ma fi yónni mu nekk moom it ku baax kuy dox lu baax ca grand pour grand parti ndax gis nga fee ñu nekk ne suñu gox bee ñu nekk ay femmes lañ fa dajale yu bari yoo xamante ne nii bu koor jotee dañuy dugg ci àll bi dem waalo jënd suñu camion soble camion pombiteer ñëw séddale ko groupement yi groupement buñ ko ci jox nag booy fay si suñu xaalis amul intérêt intérêt bi dañ leen koy jàppee jàppalee ci seen kees pour rek ñu jàppale ñu pour maali Gakou yaa ngi may dégg ren ren jii suñu suñu suñu suñu koor ay deux cent mille deux cent mille lañ joxe ak propre moyen la koy defee ngir Malick Gakou yaa ngi may dégg deux cent mille deux cent mille yooyu bu neexee yàlla ak yonante bi koor lañ leen ko joxoon tam xarit lañ koy lañ koy laaj après tam xarit pour rek jàppale jigéen ñi lépp lu tegu ci xaalis bi ñoom ñoo ko moom ñun suñuy deux cent mille rek lañ ñuy delloo jàppalewuñu kenn nag ku dul Malick Gakou bëgg bës bu yàlla defee président Malick Gakou ñëwaat fee jàmm gën jigéen ñëpp génn xam ne Fat Sall mii bëgg na Malick Gakou Malick nag yàlla lañ koy bàyyal président sax laay wax ñu ngi ñaan yàlla 2024 bii ñun ñëpp ñu ànd dem pale loolu rek lañ koy ñaanal waaw loolu daal lañ koy ñaanal ndax macha allah ku yaru la ku diiñ ci boppam la ku ñu déggul dara ci ay caaxaan war ci ay wax waaw xam nga ne moos nekk euh, ministre de la ministre du commerce ñu ne carrément mburu bi dañ koy yokk mu ne suñ ko yokkee ma wàcc ba ñu yokk ko mu wàcc kooku jara jàppale la yal nañu yàlla jàppale yaakaar bañ a tas ba lépp lu ñu fi def fii ci formation bi ku ci nekk lépp loo ci loo ci kii gi xam yàlla ful ko mu nekk njëriñ ci yow nuyu naa leen yéen ñëpp ziar naa maa nuyu ñëpp seen tur seen sant di leen gërëm di leen sant nag di gërëm ñi fi daje yépp responsable yi fi daje yépp di démb ba léegi maa di gërëm di leen sant di gërëm Adja Kumba Keita maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant démb otoom la taal jël suñu mairie loolu lu rëy la su ko neexoon ne ku nekk na nga dox ma la nga jël taxi mais otoom la gaara jël ñu jël beneen oto kon loolu ñu ngi ko ciy remercier bu baax di ko ñaan nag lii mu nekk nii yan lañ toog ba mu nekk ministre fee waaw ñu ngi ko ko ñaar baax te di ko ko yéene tamit di félicité aussi suñu maman bi tamit ak madame Thiam mi ñu leen di ñaan félicité yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm ak xiiwal ak sutura di ñaan nag mille vingt 2024 fekk ñu pare waaw aussi di ñaanal Pape Sow parce que Pape Sow moo tax a taxaw fii tey man ak Amin mais Pape Sow mu ngi def loo xam ne fee ci commune bi kenn defu ko fa Pape Sow day génn ay mille di ñu ko jox ñuy projet di joxe ay 300000 ñuy jox ñuy projet. kon Pape Sow lekkul dara bàyyi kenn Pape Sow korité day joxe koor day joxe tabaski day joxe kon xam nga loolu lu rëy la kon nag ñu te loolu yëpp ci bugg Malick Gakou moo tax mu di ko def su muy def daanaan grand parti moo tax ma di ko def te aussi Malick Gakou man ba ma koy political boobu foog naa ne maire Awa Sow mii dama ko doon fekk ba Kër Massar doxal sama tànk ba Kër Massar dem di ko fekk rek pour Malick Gakou parce que ma sama goro ñoo bokk benn sant kon nag nit ki bala ngay bëgg da ngay sa mbokk bala ngay bëgg keneen waaw maa ngi gërëm tamit monsieur le maire adjoint président sax lay wax adjoint président lay wax waaw waaw maa ngi lay maa ngi lay félicité bu baax di la gërëm aussi di la sant dé bañ fi nekk ba léegi sonnuñu kenn lekk fi gerte caaf bu gërëm bu eh, coy lekk alom na ko gërëmee coy parce que yooyu ko baax nga yal na la yàlla dafa jàmm dafa la xiiwal waaw loo am fii yàlla nekk sa wërsëg ak ñëpp parce que yaatal nga ñëpp jox nga ñëpp aussi sa bopp kon nag ñu ngi lay gërëm di la sant dene lo ñak fi yalla nga yalla nga am lu ko remplacé lu bari fi ak fi ak bee di dé ñu ngi lay gërëm bax di la sant wax nak yombul ma ngi ma ngi leen di maa leen di gërëm ñoom wax mom yombul lu ci joom rek ci man la ñemewuñu ñoo wax turam waaye salon liquide la ñun dañ ko tuddé sukkal ñeneen ñi amna benen tur buñ ko jox waye ñun sukkalé lañ ko tuddé

boko ko limi li muy def si yaram ku nek xamna na ferñeent nek ci bir sal ci bir carotte ki ku ne xam nga fuddal damay deglu barki démb ci tiktok bi ben jigen do waxtan ak ben way waji nako na fuddal comme ni ma def jeeg bu ko def buñ la yobbu won ci yoon borom day perte xanaa ku ne seetaan ko ci tiktok bi man na fuddal sama xarit la xam nga sama loxo yi daa ñaaw ay loxo bambara moo tax nii laa ko gis nga fuddal moom la def nii mooy saabu bii saabu bii mooy saabu fuddal genre masque la masque bi ñuy tubaab bi di indil fii masque bi moo ci gën bu sa yaram amee picc wala sa kanam wala dara wala nga doon sa yaram yàqu saabu bi mooy sa masque boo jëlee fuddal bi def ci ni muy def nii suñu loxo yi di ko rafetal noonu lay def sa kanam fu lii ku ne xam nga xorom xoole xorom xoole xam nga xorom xoole xorom xoole li muy def si yaram dana dem ci kénkilibaar dana dem ci ataaya lii nag li mu baax mooy ñi nga xam ne seen doom yi dañoo am karaas mag koom ndaw góor comme jigéen karaas lii moo ci aay karaas day sëqal karaw ku say kanam nga leel boo jëndee huile bi di ko ci def yow tàggoo nga ak leel bu sa karaw daggee yow lii boo ko ci dee def da may karaw damaa xam ne damaa demoon màkk ne mënumaa jënd sama karaw waaye kon dama leen di won kii ni mu baaxee ci karaw lii ni baaxee ci karaw man sama karaw dafa gudd te lii daf ci bokk muy huile xorom polle lii mooy niim niim bi nga xamante ni dangeen ko sànni nii ci mbedd bi man dem naa Côte d'Ivoire boo sibiroo niim bi la jël baxalal la nga naan kaas suba kaas midi kaas ngoon mooy seen nivaquine mm. ñun niim boobu nag lañu yàlla dimbali tey ñu am xam-xamu mun ci def huile xale yi nga xam ne seen yaram dafay xasan ñu am herbis mag ñi nga xam ne dañuy sol daal seen diggante ñaari tànk yi di am kii yu weex yooyu mel ni comme ndoxum siti kii moo mën a xeex ak moom boo ko defee rek bàyyi na la dafa am xottu butéel en même temps dañoo boole niim ak xottu butéel moo nekk ni bu sa tànk defee genre heure yooyu xar sax bu sonn jëndal def ko ci rek yoro sa benn bomb bu neex rek nga bomb ko ci day tax ban kii. bi ñuy wax sonal nit ñi moo ci gaaw yi xale bu amee bronchite ku ne xam nga njëriñu ñun kii moom moo ci gaaw xam nga nag tubaab yi nag léegi ñu xeex ñu nag parce que ñun la jëkk ay nandite la ñu. <laughs> monsieur le maire. Mhm. léegi nga gis tubaab yi commencé ñoo xeex parce que saa si des produits naturels mhm. naanu loo ko da ngay sam sa doom ba mu set. góor ñi nga def ko ci xam nga waxee dafa xew. dafa ñëwaat kii moo koy faj. dem yóbbu hôpital mu ngi nii. en même temps li tax moom xottu bi te dañ naan la boo feebaree naanoo xottu bi teel. xottu bi teel mi ngi nii fii ci biir da koy faj. tubaab yi la ñu commencé xeexal ñun ndax ndax lii. lii nag xam ngeen Dakar man damaa bëgg ceeb bi Takabiri stili. Stilo, stilo, stilo, concentré. Li mooy Dakar dañ koo def jus bi ngeen Malick Gakou ñaaw yi ñoo ko def mu nekk sirop man damaa dem foire fekk fa Dakar bi def ko sirop def ko di tax def ko lépp kon suñu jigéen ñi commencé ngeen entreprendre uti leen seen i këyit seen carte artisanal

ba tey jus de Dakar a prêt à waaw on est seddal rek naan prêt à l'emploi donc ñoom leneen li ñu jot a def jox nañu ne ci yi def nañ fa jus Dakar def nañ fa saabu karité def nañ fa ay produits yu bëri daal. ben loolu la yàlla dogal tey ñii ñoom loolu la ñu def. kaay monsieur le maire dañ koo beral la ko ndax moom bu ci nekk da cee am ñaar ñaar ñaar ah. te ñeneen bu ci nekk benn benn benn daal ah. xam naa buñ ko seetaanee dinañu mën a ñaar moom lu mu xewle te nag saabu ordinaire bi ngeen di fóotee am ah. nañ ko defar nañ saabu defar nañ saabu ordinaire ma ne léegi gis tubaab dooñu xoolal saabu ordinaire bi ñuy fóotee a def ba mu bi ñuy fóotee ngeen koy jëndee 400 moo ngi nii

Oui, mais ça dit que tous les produits, même si c'est une étiquette provisoire, vous devez voir taf qui est une étiquette. Non, non, on ne met pas le, produit. Ça dit que c'est comme pour notre consommation. on a dit que C'est pour notre consommation interne. Produit qu'on est, il est tout long. Il est un peu récord. Il faut que vous aies bien fait de ne pas te tromper. Voilà. Je vais expliquer que vous avons déjà le produit. Mais c'est déjà excellent. Ça montre vraiment. En deux jours, vous avez fait tout ça. man ne dool leen li monsieur le maire wax effectivement loolu dafa am solo mais Adja Mata Si Diallo nga xam ne mooy suñu yaay ci parti bi nee bu ñu paree département de Dakar bu ñu ut Fra moom dina ci teg loxo te département boo kii région de Dakar département bu nekk nga am fois Fra mën a liggéey seen biir kon wax di jëm parce que monsieur le maire li nga wax dëgg wóor péngal mm-hmm. waaye am na noo xam boo ko ci bindee buñ ko gisee suñuy noom dañuy porté tamit. loolu moo tax xam nga kii am na tur. mu ne xam nga am na tur. waaye dama koo ragal. non non c'est sa moo tax ma naan savon. liggéey liggéey ku ne xam na. yéen ñii ku ci nekk xam nga lu tur. waaye boo ko tuddee. jàppee waaw. félicitation vraiment félicitation à vous félicitation